ay Serigne Fallou Luc Nicolaï xalif général kulub promoteur loo def nii le combat royal tant attendu tey mooy dimanche juróomi fan ci weeru novembre atum 2023 drapeau Moustapha Gueye le deuxième tigre de Fass ñoom ñaar dellu soit nañ ci digg géew bi Kapay moo ñu ko may ci Sénégal ak li ko wër waaye Kapay kenn du yow muy transfert d'argent bi gën a wóor waaye bu dee bitim réew seen affiche point com ngeen di seetaan noonu Modou Lo ak Ama Baldé dellu soit nañu wurewa dem na kang waxu dem na ndañ taali bàgg na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamb Ama Baldé à gauche Modou Lo à droite KP jërëjëf Serigne Fallou li Nicolas jërëjëf télévision Futurs Médias jërëjëf waaye seen affiche point com jërëjëf ndeysaan ku suufle ba dal na Ama ak Modou ñaar ñu ngi lew too ñu lew too laa ilaha illa di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info ak euh, People 221 euh, kon euh, ni leen koy defee rek à chaque fois gannaaw ba combat Gackou 2 ak yi xam ne moom mooy Pokola jeexee di ci félicité nag ñi daan ñëpp ak ñi daanu ñëpp ba tey ñu ngi fii si Pikine ñëw seet si ki nga xam te ne moom mooy Pape Sarr Pape Sarr nag ko li mu wax rek kenn du ko présenté kenn ndax nee naa leen Pokola premier combat am ba tey nii lépp gis nañu moom moo ko gunge dañ koy bàyyi nag mun nuyoo ñu dugg si waxtaan bi Pape maa ngi leen nuyu Sarène Production. yee maa ngi fay di muy euh, people 221 di nuyu di gërëm waa kéwél yëpp di leen nuyu di leen nuyu doom sama doomu ndey guy gi ak seen caméraman bi di nuyu suma freer yi fi nekk tey xam nga suma ma limee damay juum su ma nuyoo Cale Abdul Ndiac sama ah Mbow xam nga Laay Njaago xam nga Cheikh xam nga yu gaynde maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm Maxa Maxa bu maire Yacine Doucouré di gërëm Khadim jaañ di gërëm Mori di gërëm Touba di gërëm ñi muy àndal ñëpp. ñoom jéeri di gërëm waa Ndayane nag di gërëm population pikin di gërëm tey kilifa diine yi nga xamante ne tey kilifa yi nga xamante ne tey dem naa fa ñu ñaanal Pokola ku mel ni sëriñ sëriñ sëriñ Dieng Serigne <laughs> Dieng maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm buuba def si kot. jàpp na si. non buuba def si ko tey moo lamb lamb ji maa ngi gërëm kebe tey ñi ma indi woon ci combat Balla Gaye Boy Niang tey ñoom laa indi tey ci stade bi Fatma Dia ñëpp xam nañ ni man damaa tëgg ba léegi ma sama caution billaahi wallaahi tallaahi di gërëm tey képp koo xamante ne rek jàpp nga ci combat bi xam nga di masawu bu baax a baax a baax nag gàkku de man dam ko waxoon ba muy combat bi ba du mu jeexee ak lu mu doon xew tey bu daanoon Pokola nit du ma si dégg lu ñaaw parce que tey dama amoon ay xat-xat maag waxaa bisi moom mooy premier nit ku def vidéo di ma ñaanal kon tey buy bëreeg sama doom ah nii rek laa mun a waxee di ko di ko wax ni maa ngi seetaan léegi-léeg ci benn plateau mu neen dafa bàyyi làmb gàkku bu mu dugg si loolu xale bu ndaw la Pokola daan la du gàcce maa ngi la koy ñaan li nga wax noonu nañ ci set wicc barki Seydina Mohamed champion la xam nga ku bëreeg ñoom booy dakaar bëreeg ku ne. freiné booy yi fi gën a ës. booy yi gën a ës moo leen fi freiné tey munoon na daan Pokola parce que egoon na foo xamante ne ci Pokola boo xamante ne xam man ci télé kii bi laa ko gis parce que man du ma seetaan combat Pokola non non man musuma koo seetaan. d'accord léegi dañuy ñëw ci préparation combat Pokola ñu gis ci combat bi bokk na ci combat ëpp coow ci Pokola gàpp bi la. wala tey dafa am leen loo Pokola doon wane. si adversaire bi la adversaire yi mu sa am yëpp adversaire bi moo si gën a dangereux ma xam ko di ko seetaan di ko topp ba pare muy borom jom kon bu ñu amee bés boobu dañ koy fonk dama ne la combat yi combat man xamoon naa nii lay nii lay demee parce que Gackou 2 du ragal dafa ñeme ku am jomla ba pare tey géejawaay yëpp ma kontaan lii laa bëgg ñuy def. kon ñëw Balla Gaye rek Seydina Mohamed dama see kontaan parce que dabaaram la def tey say rakk bu ñuy bëre nii la war a def moom moom Balla Gaye tamit maa ngi koy masawu bu baax a baax a baax ak képp koo xamante ne tey yaa ngi doon topp gàkku de ñu xam ne lii espoir kese la di féliciter suma doom Pokola bu baax. léegi Pokola fu mu jëm parce que am na ay combat yoo xamante ne gaa yaa ngi koy teg Pokola ak ki nga xamante ne moom mooy tal Talfa Guémér bi ñëpp nee nañ combat bu mooy combat bi. amul ku laaj keneen. amul beneen mbër bu laaj Pokola. Petit Lo mais Petit Lo la mais na jël revanche ci soq ba pare soq bu daw. mais dafa daan avec la main na jël na Pokola daa ñëw ngemb soq bu ndaw soq bu ndaw daan ko. combat Talfa boobu depuis bi mu daanee daam sugeer la waroon taxaw si man mii la tagee woon ndax xëy na booy bi ñu bëri comprendre ñu booy bi moo xawoon def benn sorti si man rek. xam nga may bloqué foofu ku ñëw ma bañ mais instant yi nii combat bi ñor na. pare naa. Talfa. li may wax avance am ñëpp ko fi bàyyi. non dama ne man maa jël sama décision promoteur bu ma seet fay Talfa njëgu kër Cambérène bi mu dëkk fay Pokola njëgu kër Pikine ma jël combat bi. mais est ce que xam nga Talfa tamit. Talfa barke Seydina Mouhamed combat boobu comme combat Modou Lo Balla la day tëj arène nationale kon dañ leen di fay xaas bu weex tal. mais est ce que li muy bëree li muy bëree nii ak li muy maye. Pokola bi mu nekkee xale ba tey. ay weñ lañ ko doon dóor musoo gis rongañam du jooy mais jaaxal mooy day joxe kanamam ba pare. ba pare dama ne la dañ ko doon dóor ñun dañ ko doon dóor ak Paate Balde doo gis rongañu pa pa c'est que ñii la jaaxal mais ñun ñi jaaxaluñu barki Seydina Mohamed. dafa ës te man gëmuma ni nit dina ko door mu daanu gëmuma ko. gëmoo ko déedéet damaa fekkee lépp kaaw. non kon ku ñu kaaw mooy ku ñu door nga daanu. fi mu egg fii jafe na mbër di fa egg mbër nga nga siy génn jom ak fulla ak fayda la wone dama ne la ñun pare nañu combat Talfa ak Pokola pare naa essai. pare nga waaw. du dugg parcelle parce que tey Talfa sama rakk déedéet man Talfa du loolu Talfa suma rakk la dafa am benn ndijaayam boo xamante bëggoon na combat bi xam nga billaahi wallaahi te ñoom ñaar ñëpp suma ku si nekk jàmm laa la yéene Talfa tey ku ko fi bàyyi rek ah danga nga bëgg la neex rek mais mbër la champion dafa def ay preuve am instant yi nii nag bëgguma ko woon mais instant yi nii pare naa. Hmm. ñu gis ni euh, Pokola daan na Paate Balde am lu mu wax ne ma damaa indaale cinq. ndam. a mhm. na Pokola euh, daan na léegi des na Ama des na Babacar Balde des na Jacob ak Eumeu Sène nekk looloo ko dese. ak Boy Niang. moom waaw waaw <laughs> léegi ñu gis ni Pathé lool la wax. waaw Pape Sarr dimanche bii di ñëw jour ji mooy ñaata. jour ji mooy set. jour ji mooy set. Hmm. Modou xarañ ah, la waaye ak dëgg ak ay xarañ dëgg la de. Mhm. barki yàlla dafa def fii loo xamante ne ñu bëri defuñu ko. Hmm. muy ndaanaan. yaa ngi ma de ñun ñu rêvé woon pour mu bëre ak Ama Baldé tey wax yeeg wax yu ñaaw yeeg lépp jeex na xam nga lan moo ci des ñu dalal supporters yi loolu moo ci des pour ñëpp ñëw si jàmm. ñu gis nag da ngaa jël Modou Lo Pape Sarr bu parcelle am looloo ñu jaaxal. Pape Sarr Pape Sarr amatul bii benn la la. en la cas bu parcelle de moom instant bi. non non loolu la dégg kooku dam ko bippé rek man kóolaguma de woote wu ma damaa bippé rek. nee na da nga ko menacé. non non menacé wu ma ko mena non non mena kooku déggoo ma ne la bu combat bi jeexee ba yàlla def ñu gisee ah ngeen gis si TikTok bi lu garaaw. mais na xaalis bu bari la ko gars yi ay millions la yor. waaw yàlla na ko yàlla na ko rees ak jàmm non yàlla na ko rees ak jàmm. Hmm. waaw na yàlla na ko lekk comme dañ koo wéyeef yàlla na ko rees ak jàmm. mais instant bi euh, Ama war a open press Modou war a open press gars yi ne mën nañoo wax ne open press dara la ne wala du siècle Modou Lo. 7 hmm. jour lu ñu doon lam-laame di ñaan yàlla yàlla yóbbuñu si jàmm ak salaam Pape Sarr instant a ci des. non ma ne la man pare naa man. pare man pare naa. Hmm. barki yàlla. gis nga fi ma doon dugg ci événement ñu doon am ñu koy gañe hmm. ah man dugg naa fa di wax Pikine yëpp na ñu génn jàppale seen frère parce que ñun ñoo ayee dégg di ci woo Eumeu seen bu baax mu dugal ci loxom di ci woo boo Niang mu dugal ci loxom di ci woo suma frère Balla Beye numéro 2 di ci woo tamit képp koo xamante ne tey ñoom Fallaye 2 ñoom Jinne ñoom euh, euh, euh, Yaya Jammeh surtout Yaya jàmme kuy sonn ci Pikine la Yaya Jammeh mu ngi Espagne nekkoon écurie Fallaye billaahi maa ngi koy gërëm man dama doon wax di fàtte mais Yaya Jammeh kuy sonn ci waa Pikine la ma koy wax tamit Balla Gaye numéro 2. wala moo woo Balla Gaye. si dama koy woo. da daa xam sarax déedéet du sarax moo Balla Gaye Ama Baldé da doon sonn ci ay combat dégg nga tey bu ci jàppee da ci war a jàpp te da si mu ngi siy jàpp. non bu baax mais debaaram la war a def parce que deretam la du dëgg ñu ngi ko siy woo mu ñëw taxawu reeram di ko wax Sa Thiès di ko wax képp koo xamante ne tey yaa ngi yeewoo géejawaay. non non waaye bañ wut wallu Modou Lo booy bëreeg moom da ngay wut wàllu de dañuy wut wàllu bañ a wut wàllu. mais combat bi. kenn du wax lu ci xew ndax yàlla rek ko xam mm-hmm. mais est-ce que nañoo jàpp ne Ama def lu lu surprendre gars yi ndax Modou adversaire yi bëri Ama bëriwut ak ñoom mm-hmm. ñu gis ni Modou wax dëgg yàlla nag bu du rëyut mm-hmm. dafa sonal gars yi Ama ko mun fuuf ñan la Ama moo ko mun fuuf nga ni barki yàlla Ama ko mën amul problème kooku du ma wax du ma du ma sikki amul benn problème kooku suñu doom la mm. voilà kooku mënul munu mënul mënul mënu ma wax dara loo xamante ne lu ma koy teg ci dara kii yoom parce que soo xoolee booy bu yaru wax dëgg yàlla kenn mësu koo gis wax muy wax wax bu débordé non am na ci plein droit parce que ñoom ñoo ko yore am na ci plein droit barki yàlla dama ko koy nangul. mais moo tax nga moo mën foofu Modou. mais sama gëm-gëm ak gëm-gëmu foo teg loolu ñoom dañ leen di dëkk micro ñu ne Modou Lo moo gën a pare. moo gën a pare moo def lépp ñun tamit boo leen ñu dëkkee micro ñu loolu rek la ñuy wax loolu la ñuy wax. Uh-huh. ñun open press man maa ngi ciy invité président supporteru Modou Lo ñu dawal fair play ñu ñëw foofu ñu ñëw. Massare loo bëgg. barke yaar Rasulullah nga yàq combat dam la dam sa waay man ku ma téye sa loxo na téeméeri pikin waa génn benn nit du laal ku ma neexul yàlla na téeméeri pikin waa génn barke yàlla Fatma Dia man su ma neexee léegi làmb ji am tension. site internet yi laay woo jaxase làmb ji mu indi tension su ma si bëggee jàmm da koy am. am na bi dama ne la pour xale yi doxee li ñu warul doxee du dëgg dafa dépendre ci man. yaa ngi fanaan fee ba Koor ah, Lamine Koor man ay garab yow 3000 laa joxe rek ah. yooyu noonu ñu kii ko fanaan fanaanuñu ci biir arène mi dañu ne din dafa am kër ama din rak rakulaay gisee daf ñoo abal foofu benn kër ci kaw hmm. booy dañuy sot yéegee ci kaw da ngay tiim bi hmm. du dëgg. du du ñun ñii la ñuy saraxe ci stade bi. non sulleeguñu dara sulleeguñu dara parce que kenn dugul ñun man dama jàpp ni Modou Lo amul sax jot yooyu quoi wax dëgg yàlla comme combat yooyu nu mu doon demee ak bii sax wax dëgg yàlla teguguñ ci suñu bët voilà. kon Modou li mu wax li mu li mu yor koo wóolu kon. a ah, waaw ñun da en tout cas daal ñu ngi ñaan di wax kilifa diine yëpp ñëw ja ñaanal. wallu rek ut wallu sëñ Taxa maa ngi koy woo Cheikh Abdou Karim Mbacké ah waa kër sëñ Afia yi ah xam maa ngi woo waa Touba yëpp waa Tiwaawoon waa Ngumba Ngewul waa Casamance waa Gambi ñëpp laay woo bañ a woote combat bi dañuy woote wallu nañu ñëpp jàppale. di ko félicité di ko wane sa frère mu ngi si ginnaaw nu nu man da wax dëgg yàlla dam lay ñaanal tey yow lig di ko laay comme xam nga am na am na am na yenn yoo xamante ne si face à face yi loo xam ne daf ñoo metti woon. comprendre nga xam nga genre waxu menace la woon ñun bëgguñu yooyu tey bu nekkee da ngaa bëgg sa làmb tey nga gis ay nit yoo xam ne ay nitu Pikine lañu wala nitu parcelle woo leen ñu ñu doxalee nii suñu làmb man du ma bëgguma lu dul tey li mu si dugaloon mu double ñett loolu laa koy ñaanal si lii mu dugg nii yàlla na ci gis lu réussir loolu laa koy ñaanal. retouru Pathé Baldé ci Baldé Baldé. <laughs> déggoo man wéetatuma man wéetatuma gaynde pire. kuy wax ci moom rek xamoo ko gis nga kuy wax ci Pathé Baldé xëy na dañ laa jox micro wala jox la caméra ngay wax lu la neex si moom mais man xam man mii nekk ak moom fii man xam naa ne gaynde la. Bousse Pathé Baldé noo gis loolu. non nee na instant bi na ñëw de. kan. Bousse nee na Pathé ñëw. non non non du bëre Bousse waaye Bousse sama xarit la. Ah. du ñu bëre non non du ñu bëre. duñu bëre gis nañu wax si yow ba nga jooyee jooyee tur xéwal yooyu lan la woon. non dama dama am lu ma doon wax si paata Baldé ak Kër Falaye ñu bëri tege damay wax nii mais Pathé dafa ñëw jaar ci digg bi dégg nga may won ni Pikine Falaye Baldé ñetti ñetti titre foncier la amoon Pikine daa am Géejawaay benn la Bawol am ah, fii centre commercial bi muy tableau Thiam benn kër ak kër Falaye Baldé dégg nga te man tableau Thiam laa gënoon xam fii looloo tax ma ne la bi may nekk ak Pathé Baldé ama ah, judduwul dégg nga muy suma kër may ñaanal tey Babacar Balde si combat bi mu jëm yàlla mayal mayko ndam Jacob Balde maa ngi koy ñaanal mu am ndam lu sedd guy xam di ñaanal adversaire am match di sama xarit yàlla na ko yàlla defal jàmm di gërëm bu baax Xaadim Jaañ yëkkati na ay tisat yu bëri may ko Paate Balde di gërëm Mor Ñang di gërëm waa Ndayaan kii drapeau Pokola la kii drapeau roi des arènes la tàllalal ma ko am ma seen bombardier gi drapeau yi fu mu ne woon non dañu foog ni damay doog a ñëw Pikine lii drapeau bi la ama mujjee bëre moog Papa Sow yëkkatil cal la jógal ah, Ama Baldé Ama Baldé mu ngi nii kon képp kuy wax ni Pape Sarr eh, waaw bi ma ñëwee yàggul kooku mu ngi nax 832 17. ba nga ñëwee yàgg. non dégg non non man 17 yu zone maa ko génne. non dañ leen di bàyyi déggoo ma ne la ñooñu dam leen di bàyyi ñu wax. combat bi lay gën a lay soog a wax ci affaire Ama Baldé. barke yaa Rasulullaay xamuñu. sama dibitari fa laay Baldé laa ko tuddee woon. 17 yu zone maa ko fi génnee. Ama moo bëre Ousseynou Ndiaye ma génnee tribune bi ñëpp ñibbi une semaine après mu am kati junior. waaw ñaari émission mënu fee. wala moom daa fekke moom daa fekke kii dafa fekke lépp. Ah. mais maa ngi gërëm ñëpp. te la fekk Ndayane. fii mooy Ndayane. dama ne la dama toog fii nekk di wax ci Ndayane Ndayane nekk terrasse. may wax ba mu nekk air prise 3. billaay wallaay tallaay. fii ku fi ñëw fekk ma fii. lu waay waxoon di si génn. barke Seydina Mohamed. ku ne ñëw na fi. bi bu fi mbër ñëwee yàlla ak mën a tax. barki yaa rasuulaay bu fi mbër ñëwee yàlla ak man mii maa lu leer laa lay wax. maa ngi gërëm ñëpp di leen nuyu di nuyu suma frère guy gi di gudd nuyu xam nga nit ku baax la di nuyu xam nga people 221 di nuyu ah, suma site bi tey di gërë di di ñaanal Fallou Ndiaye suñu borom defal ko télé bu mag di la nuyu bu baax a baax a baax di nuyu suma frère. xam nga Bayla Aliou Seras suma yaay ñoom Abdoul Ndiac ñoom Sóora ñi ma fi fekk gaa yëpp ñoom Calle xam di ñaanal bu baax a baax a baax li mu mën ren Khadim Diagne li mu mën ren yàlla na ko mun déwén di gërëm yaayam bu baax maire Yacine Doucouré ak képp koo xamante ne tey ñaanal nga Pokola mais kenn du buuba def si kot billaay kenn du moom ay Serigne Fallou Luc Nicolaï xalif général kulu promoteur loo def nii le combat royal tant attendu tey mooy dimanche yi fan ci weeru novembre atum 2023 drapeau Moustapha Gueye le deuxième tigre de Fass ñoom ñaar dellu soit nañ ci digg géew bi Kaapay moo ñu ko may ci Sénégal ak li ko wër waaye Kaapay kenn du yow muy transfert d'argent bi gën a wóor waaye bu dee bitim réew seen affiche point com ngeen di seetaan noonu Modou Lo ak Ama Baldé dellu soit wurewa dem na këng waxum ak dem na ndaj taali bàgg war na mbaam du waay doon jaay léegi mu lamb Ama Baldé a gauche Modou Lo à droite KP jërëjëf a Fallou Luc Nicolaï jërëjëf télévision Futurs Médias jërëjëf waaye seen affiche point com jërëjëf ndeysaan ku soufflé ba dal na Ama ak ñoom ñaar ñu ngi lew too ñu ngi lew too laa ilaha illallah ay waay xool leen stade bi Modou Lo Ama Baldé ñu ngi xeex ñu ngi xeex xeex bi métti na ñoom ñaar ñu ngi xaar arbitre